te mat kaay waay Baye Assane Ndiaye Baye Ndiaye man ci Baye Assane Ndiaye dem si yàlla sax booy mën nga may ñaareel waaw ndaw sa gàddu kasaloor fekkum tëdd jaaxaan su meeku mu commencé ci ci weewu tànk yi ba ci ba ci bopp bi oh pop ni ko paw bor ndox baag ah. dawluñ jaag kasaloor baag lépp yow lan la yow a laaj lan la ma ni lan moo xew séeréer ji nga nekk xamoon naa nii nga laaj naa la ba ndax embuscade la waxoo ma dara man la pièce la waxoo ma dara xamoon naa yi ngay préparé waaye kay ma wax la waay man yàlla ma dimbali booy cuc léegi la fi jógee même sc même scénario maag Baye Assane ñoo bokk benn cas li yóbbu Baye Assane nag man fi may ba